Google sama Samagal TV bok internet yi ñu ngi leen nuyu de ziar di wax ne ñu ngi fii ci deuxième édition RES regroupement des éleveurs de Saint-Louis tey ma taxaw waa Louga xaari maa leen nuyu. Cissé ñu ngi lay fay di kontaan comme ça su si di seq ak yow waxtaan. Uh-huh. di nuyu téléspectateur Samagal TV yep uh-huh, uh-huh. di nuyu mboolem éleveur bu ñuy dégg. waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax allah ah daaw de moom tajoon nga fi daaw da fee rajax woon li li li ma dikkee ñaan naan ma mar waaw daaw moom <laughs> eh. macha allah waaw ah, ndax eh, xam naa ne eh. élevage bi su ma juumal ñaata catégorie la sax agneau espoir grande femelle grand mâle sun borom def ñu am catégorie yooyu yëpp ñu amoon si ay ay ay trophée vraiment di ko sant suñu bu baax. macha allah mhm. waaw euh, macha waaye tey ñëwaat nga ak beneen anam parce que gis naa fi tey exposition boo xam ni gën na gën na yaatu. Mhm. man ni ma fekk sax ren moom a dàqal daaw neexul boobu bëgg rek rek. waaw maanaam xëy na champion yi fi ñëwoon daaw am na ñoo xam ne nekkatuñ fi manqué nañ fi. mais tamit li ma waxoon euh, waarees biñ ñëwee di ma yëgal ne yow la ñuy parrainé catégorie espoir femelle. Mhm. man ne ah, sama catégorie moom. leer na ma ne man maa koy gagné. waaw. maa yaa ko gagné. c' dommage que espoir bi indi. def naa manin yëpp pour ñu natt ko c' est dommage mais même ndax jot nañ ko ñett euh, donte taxawul nee naa natt leen gaaw la ak lu mën am donte natt nañ ko ñetti auteur ak benn yoon LCS si macération yooyu mu jot a am moom moo doon jël pay. ok mais nag macha ba tey wàññiwul dara mais tamit euh, xaw nañ ko dabu si famille yi. ndax am na ay famille yuñ dugal te euh, ñàkkuñu ndam am nañ ndam. macha mm. allah waaw. kon espoir bi xamaa ko fu muy taxaw. non espoir bi jotul jotul àggale. ah àggalewul dafa mujj xam si machine bi. Ah. ma ne leen su suy jógee dañ koy takkaar ñu natt ko. mais nag bon comme sunu borom sottulul ah, ah jury bi jéem na ba sonn loolu mënula antu. ñu bàyyi ba baneen rek incha allah. mais Arif ah, ah, ah, nag da ngaa bëgg da ngaa bëgg xeex. maanaam euh, xam nga élevage yu laadum li ñuy wax si xar nag njool gudd rëy ah moom mooy élevage bi. élevage bi soo melee ne xaadim di wax lu bëri si ay mesures heure boo ñëwee si foire te foire mooy am opportunité wan ak wax nit ñi nekk kat. nekkuma woon di wax sama teeyug bakkan kese. li may wax lu nekk la faaw nga dugal xar yi ñu natt leen. allah waaw. nga ñëw indi ñaari box. bi ma gis fi ñaari mâle ak femelle nu mu demee. waaw box bi dañoo indi guddi guddi di doomu Napoléon ah. Hmm. ak xar yi nga xam ne jot na def ak ñoom production. Hmm. waaw moom moo fi gagné woon démb daaw ma añu non euh, baneen doomu nag baneen bi jamanteer moo gagné jamanteer moo gagné woon añu mais yaram bi dafa neexul moo tax moom ñëwul ne xam naa ne moom li ma wér ba wér su yaram bi neexoon ba mu taxawaat fii hmm. dinay wax laneen moom classé lu woon daaw moo jëloon pee non kii laa guddi guddi non guddi guddi classé wul jamanteer moom ah, moo génnoon moom moo génnoon mu ngi am ñaata weer la guddi guddi guddi mi ngi si 22 mois 22 mois jamanteer nekk si 21 mois macha allah waaw mais tamit uh-huh am khalebo xalé bo xamné raxna rax na seen basandar tey muy euh, bureau Bassandar biro Bassandar man na ni negini daw 16 décembre la judd won foire bi tambali won la 25 Dramé ñew ci ma teunk ak mom daal koy jënd daal koy wat biro Bassandar mhm. di xar bo xamante ni doomu inshallah allah doomu jamanteer yi ak doomu gudi gudi yi moom moo leen war a croiser moo tax ñu génneewaat ko bi anniversaire am jotee. pour wan ko éleveurs yi. doomu kan la moom moom bi la ca dara. moom yaay jéey moo jur papam yaay jéey mère femelle. Thiès. moo jur Gabi. léegi yaayam tamit maxu sëy meilleur mâle de tous les temps daal di tëb vitrine ah. vitrine di sëtu maxu ba tey. yaayam daal di judd muy Jador. waaw léegi nag gabi croisé Jador bureau ba sa ndar daal di judd ah mais loolu rafet na de bureau ba ndar am ñaata weer. bureau mi ngi si douze mois li may faral di wax xar la boo xamante ni nii képp ku ñu wax fi mu bokk. Eh. li ngay njëkk a def mooy yaakamtee gis doomam. yàlla na ko suñu borom gën a mottali. amiin amiin amiin. maa nag ay femelle robe bu weex ba lekkal la. waaw kële euh, moom mooy naasi. meilleure femelle Louga. man naa ko wax loolu ndax bi ñuy concours Louga si suñ bi ah, eh, moom moo jëloon première ah, defoon 107 ak 143 fii mi ngi fi def 105.5 ak euh, virgule 5 macha allah waaw kële tamit di yaayu jamanteer moom li may faral di wax la borom 3 sorties 3 podium daaw moo jëloon fii deuxième waaw waaw foog naa fii mi ngi fi 3 taxawee troisième bi waaw

waaw baneen femelle bee tamit doomu Bill Gates la. maanaam corne yu ñuul yooyu. waaw doomu Bill Gates la Bill Gates doomu madame Cissé la. macha waaw. moom def na 101 point 5. moom duggoon na duggoon na ak 147. ñaar femelle nga dugal. ñeent lañ dugal ah Diop man yow laay woote Xaadim yow moom càmm gi moom euh, euh, élevage li mu soxla ngay def parce que càmm li ma la laadum bu doon yàpp rek dina ko jël ay millions. foo mi concours bee tax ñuy xam xam seen li may wax nag xam nga élevage moom. li naan ku si ne sa bopp moom ngay ràccal mais nag nit ki lu mu wax wax wax opportunité wane la muy wax su jotee dafa war a natt ay xaram man loolu laa gëm lu ma wax wax wax wax ah, su ma ñëwee si foire bi la ma doon wax dinaa ko natt su ko defee éleveurs yi xam ne xaadim amul du yo maanaam nekkul ay waxi kese la def añeel bi nag waaw añi ñii ay doomi guddi lañ. kii mi ngi si mois. Ah, ok keneen ku ñuul kii mi ngi si 5 mois. Ah, kii doomu jamanteer la. ah ok waaw waaw waaw. añeel bi tët doomu ah, doomu nekk euh, bureau doomu jamanteer la. waaw nekk si 9 mois macha allah. macha allah xaar mi waaw Samagal TV comme ni ma ko yàgg a waxee rek képp ku koy def ku ne ku ko wane la bëgg te vraiment. foofu ngeen féete éleveur yëpp du ma ne xaadim ne kaneem waaw wax dëgg fa yàlla euh, waa diaspora bi bàyyeetoo leen ñu wéet vraiment fu ñu toll ñu ngi toppaat di waraat émission yi di seetaan te di woote nag à chaque fois vraiment loolu ñu leen si sant sant bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo vraiment jërëjëf ñoo gën a bég ñoo gën a xidmatul xadim euh, Euh, mi ngi wuyoo si 77 946 62 99 ak 78 516 wax daanu na moom Ataaba ndeysaan. yàgg Ataaba. moo jëloon premier espoir. ok moom laay wax ne tey su fi newoon gëm naa non man ko dina jafe quoi mais tamit ah. bàyyi na fa ay seex yoo xamante ne ah. nii nañ leen bàyyi xel jërëjëf waaw a allah jaajëfati ñoo ngi leen door yëm ko tak ko wacc macha allah Sénégal euh, ça ay Modou Mbaye alay Modou Mbaye yaa ngi ànd ak sa géer Xaalim Sow looy wax sama gaa ñëw rek enveloppe mhm. baa ngi nii ma téye waaw boo xoolee sama loo xam ne enveloppe bii duuf na yéen a ko pare ne waaye Bamba ñëw na enveloppe Xaalim a ngi nii maa ko téye macha numéro 1 ak 2. waaye man ak délégation bii la bokk. sama xel dem na ci Louga suñu waajur daf leen yàlla fay jàmm ndar yëpp nañu booloo nekk benn ndax li ñu bëgg mooy élevage la ñu gëm nee leen ku xew-xew bu mën a am. sama gaal ndara ngoog direct bi léegi a ma dama ngeen def foofu bu dee planté lii lii lii lépp élevage moom moo ëmb lépp boobu da ngay a ci kanam tuuti ndax am na xamee tamit loolu tamit xam léegi bu ñu jógee foofu euh, ana Mor Samb waaye tàccuwaat leen loolu oh euh, Aliou Ndiaye jërëjëf ñu ngi bu baax baax dégg ngeen dèjà nee na kenn ku ci nekk di nga am ci chaise yu rafet yi nga xamante ni kenn ku nekk moo sañoon am ko ci sa biir bergerie jërëjëf kon nag guddi guddi Louga euh, ma bàyyi ko rek Moussa ni kàddu nag instant bi guddi guddi. Euh, euh, ndax ate yomb ñu tàmbalee añeel ba si catégorie yëpp ah li may jiw maanaam wu ñu rek nee moom ñu ne tëju boobu moom tëju ko waaw maanaam euh, dañoo xamul ne xar yi luy dund la surtout catégorie nattam vraiment man damay natt dina am lu ma gënal dina am lu ma gënalul mais li may war mooy ma jéem a bësante ak sama xol xam ne luy dund moom wax dëgg fa yàlla. ಪ್ರಯತ್ನ ಗಜಪಡೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಗಜಪಡೆ lii si Yunet ñëpp sangat si sàggante der nag ya, lu bëri ñu war ko see moytanu waaw foofu laay yamale sama kàddu di ah waaw Aliou Thiel wax dëgg aku yàlla jika malam ci jigga ya loolu malam dawal na ma sol eh kaw maalaw